ñu ngi leen di nuyu chers téléspectateurs de Leral TV gannaaw euh, bi ñu dugg see fii ci euh, Ziguinchor ñëw fi nga xamante ni moom mooy le marché Tilène marché Tilène doon un marché international ndax marché bi ñi nga xamante ni dañuy jógee Guinée Bissau nekk Sénégal ak ñi nga xamante ni dañuy jógee euh, fi nga xamante ni moom mooy Gambie ñu bëri dañ fiy jaar di jënd fii ay marchandises alors marché bi nag mu amoon ay lakk-lakk le 16 daanaka 18 août ci léegi mu mat li nga xamante ni moom mooy cinq ans gannaaw li nga xamante ni mooy lakk-lakk boobule ñetti ministre de ak sa jaar nañ fi bu ci mujj mooy Abdou Karim Fofana gannaaw yi tamit lakk-lakk boobule déggoon nañu euh, marchand yi fi nekk commerçant yi fi nekk nii euh, dinañ rétablir marché bi tabaxaat ko ci jiir boo xamante ne dina mat six mois alors léegi mat na cinq ans euh, ñu ñëw nemmeeku ñi nga xamante ni ñoo ñoo fi nekk muy commerçant yi fan la état de travaux yi tollu comme ni ngeen ko gisee nii lii mooy fi nga xamante ni moom mooy marché Tilène travaux yi nii fii la toll pour le moment ba léegi jeexagul ñu ngi ci phase de finition bi bi alors euh, dinañu rencontrer ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi jox leen kaddu ci li nga xamante ni moom mooy euh, lorange yi ci am muy sinistre yi ndax euh, ci lakk-lakk yooyu toll na ci lu ay milliards yi nga xamante ni ñoom perte nañ ko fii ndax marché bi dafa lakkoon ba jeex tàkk ñoom ñu perte ci ay bagage yu bëri ñu xool ci li nga xamante ni moom mooy état de travaux yi mais li nga xamante ni tamit moom mooy ay ndàmpaay yi leen état war a jox ndax jot nañ ci wala déet alors dañuy jëm a xool ki nga xamante ni moom mooy seen président gannaaw loolu ñu xool ñenn ci ñi nga xamante ni ay commerçant lañu jox leen kàddu ñu addu ci li nga xamante ni moom mooy construction marché i ak li nga xamante ni mooy état de travaux yi rawatina li nga xamante ni mooy ndàmpaay bi leen état war jox. lycée Tilène mi ngi lakkoon le 18 août 2018 boo ko xoolee ba léegi diir bi nekk na juróomi at di juróomi at yu métti juróomi at yu diis ci commerçant yi ak ci population Tilène en population yi yëpp ndax de marché bi da di marché bi nga xam ne bien vrai que du marché central mais moo doon xolu marché yi ci Ziguinchor ndax di marché bi nga xam ne dafa ëmb ay réew boo tooloo ne Guinée Bissau bu soxlaa Ziguinchor fii lañ xamoon Gambie bu soxlaa Ziguinchor fii lañ xamoon yeneen yi lay rëcc sax ci Guinée bi Conakry yéen yéen yi jaar Guinée Bissau bi fii lañ xamoon balaa ñu luñ profité yow yëpp def li mu def mu dogal li mu dogal lu mu ko dogalee ba léegi nag jafe-jafe kese coono kese ndaxte kat buur d'accord mi ngi jëf waaye digge bi dafa yàgg diir bi yàgg na lool liggéey bi sooxe na lool métti na lool ci commerçant ndaxte ay ndaw yi nga xam ne jàppuñu ci lenn kenn jàppalewu leen liñ amoon yëpp seey ñu bàyyi leen ñu ne ci ay tali di jóg di daanu ci ay ay pont ci ay mbedd yi nga xam ne boo xoolee ku xam Ziguinchor ak ndox bu tawee yëpp ay ravin kese la ndox mi day ñëw fii muy góor di jigéen lu métti la ñuy dund juróomi xat métti na lool yàgg na lool te tax na xool ndax bi marché bi lakkee li ñu digg ay sept mois ku la digg sept mois di dem dem dem ba mu am cinq ans xam nga ñu fa nekk coono kese coono kese lañ ci nekk. Euh, ma li ma lakkalee day dem ay trois millions à valeur de trois millions. marché bi mu lakkee yëpp ay maanaam bi ñu ko ay marché te un milliard cinq cent état joxuñu un franc xanaa ñu ak population bi jaxase ñu ak commerçant yi wax ñu waxu DER bi nga xam ne teguwul fenn gisuñu ci dara. ndàmpaay moom amut fi waaw li fi defoon daal li fi li ñu waxoon daal ñu leen jox financement DER financement DER bi nag du ñëpp am sax am na ay benn benn yu ko ci jot am waaye ñëpp nag amuñu jox nañ ay quelques personnes après ñu arrêté. ñetti at yi ñu jógee nii nakar coono lañ fi daj rawatina ñun ñu jigéen parce que gis ngeen si lu ñu nekkee fii soo sëkkulee doo jaay wala kenn du romb si naaj lañuy nekk wala si taw te metti na trop trop trop trop dëpp ñu lakkalee ba tey seen mettit la ñu dëkk te marché gi metti na metti boo xamee ne ah ñun rek ñoo ko mën a xam te fii ah dañuy dundee rek ci ah, mbirum yàlla rek lañuy dundee soit nga jaay soit doo jaay su tawee nga nga daw su naajee nga daw ñu ñëw lal teg te metti na rawatina nag sàcc yi parce que fu toll nii am sa as bagage wax du ma ne bagage la mais as bagage nga lal ko wàcc muur suba nga xëy nga fekk ñu muuril la ko metti na trop trop trop vraiment metti na te loolu yëpp ñu ngi koy jànkonte ci biir marché gisuñu kenn koo xam ne mi ñu ñu jàppale ci lii au moins fekkee dañu ñëw sax ne ah xaar la ñu jàppale leen parapluie yaa ngi nii wala ah sécurité baa ngi nii nañ leen jàppale ci koo xam ne da leen di garder par guddi mu tane mais amuñu ku ñu garder soo garder da day fekk sa poche nga jóge sa poche la jóge te metti na trop. yi dund fii lépp coono la ndax marché ba mu lakkee ba léegi amul benn taxawaay boo xam ne autorités yi taxawee nañ ko pour jàppale lenn ci commerçant yi ndax fii ñu toog ñoo fi teg suñu bopp kenn teguñu fi ñun yoruñu yoratuñ dara man mi wax yow jour boobu 6000 francs laa ñibbee sama kër 6000 francs ma xëy marché bi lakk ma xëy xool sama compte fekk ca 24000 jënd ko bagage ñëw di ambulance ñu dëkk bi di jaay di ambulance ba am taabal toog waaw biñ nekkee féet yàgg na depuis 5 ans ñoo ngi ci ci naaj bi ak ngelaw li ak taw bagage yi di yàqu coono bi eh, bari boo xëyee da ngay génne su ngoonee da ngay dugalaat taw beeg naaju lépp fii lañ fekk ñu jànkoonte ak moom ak léegi yàgg na trop. marché bi bu muy lakk fii la ma fekk te bu mu lakkee ba léegi amuñu loo xam ne neex nañu ci mbedd mi lañuy ñuy ñooy balal suñu bopp ñooy defal suñu bopp lépp te dañuy fay juuti normal juuti moom dañ koy fay normal te ñooy balal suñu bopp léegi nag dañoo sonn. ñi nga xam ne yàqule nañ ci marché bi état war na leen a gëstu war nañ ñoo gëstu bu baax a baax a baax ba man ñoo jàppale ndax naa liñ fi yàqule ci alal bari na te boobu ba léegi gis ñu ndimbal wax dëgg yàlla ndimbal loolu war naa mën a ak si ñun war cee mën a gis suñu bopp. président bi fi ñëwee six mois la waxoon te yaakaar naa léegi na six mois ay juróomi at la ñuy wax wala juróom benn te métti na gis nga nuñ fi nekkee buy taw ñu ngi fi buy naaj ñu fi kon nag. Euh, marche bi lu ñu ci mën a jàppale pour mu gaaw dañu arrangé parce que nit ñi dañoo sonn loo am sa alal day dem xam nga fii mënoo fi bàyyi sa alal fekk ko fi te nii la ñuy xëyee nii la ñuy wàccee amatu ku si am dara lépp loo am waaye amoon gisutoo sa alal tasaaroon nit ñi dañuy sàcc di ñuy siif te amoo foo ko jooyee te amoo ku dimbali loolu tamit neexul si xol te mënoo toog ngir njaboot mënoo toog ngir njaboot. commerçant yi leen moom jafe-jafe kese kese kese ak coono kese lañ fi nekkee ndaxte kat depuis marché bi làkk kenn jàppale wu leen dañ leen bàyyee seen bopp dige dong lañ fi am dige dong d'accord sant nañ ndax comme que am nañ lii waaye nag lu waroon yàgg lu waroon waroon gaaw la lu waroon pare la lu waroon heure bi waroon na fekk ñëpp nekk ci biir ndax dig nañ ñu digaat ñu digaat ñu digaat ñu ba mois de fin mois de février bi janvier passé lañ ñu fi dig marché bi dina pare balaa ak avec le ministre du commerce kii Fofana dig ñu ne marché bi yaakaar naa mu pare d'ici fin mars ba léegi yaakaar naa fi mu bu ñëwaatoon fii tey fi mu bàyyi woon marché bi dara jógaa jóge taaw kon nag ñu leen di ñaax ñoom état mu xoolaat bu baax xam ne njaboot bu njaboot moo fi ne njaboot bu amul fu mu nekk la njabootu Ziguinchor bi nga xam ne ay mbaar ak ay bant bant mënut a diire cinq ans bant ak mbaar nga mbaar ko bant bi tàmp ko ci suuf si mënut a am juróomi mbaar yëpp jaa daanu na jigéen ñi actuellement ci diggu mbedd mi la ñuy jaay amatul ñu lañ leen tiim ñu di leen di ñaan ñu góorgóorlu ndax ñu àggaleel na ko àggaleel ñu ko ñu gën a gaaw ndaate kat dañoo farluwul rek waaye liggéey fu mu toll sori na lool biñ buñ ci jàppoon tuuti eur bi waroon na fekk mu pare ba jot ci marché ñaareel bay tamit mbalit bi ne ci diggante ñaari marché yi kër yi mu jàkkaarloo mit na si ñoom mbalit moom mit na trop mooy ba nga wax léegi mbalit mit na trop ndax ay kër la jàkkaarloo ndax mbalit mi bu fa nekkee noonu mi ngi am ñu muy gaañ te ñooñu ñuy gaañ ay doomu aadama lañ tam man su ma dëkkoon côté boobu dana métti ci man trop dinaa dinaa dinaa ci laaj dimbal dinaa bëgg dinaa ma dimbali trop kon nag donc dañuy ñaan état mu dimbali ñu bi tamit dimbali ñu ci affaire mbalit bi ndax ay kër la jàkkaarloo ay doomu aadama ñoo fa nekk bu ñu wax marché bi rek bàyyi kër yi ndax kër yi mu jàkkaarloo mënatuñoo noyyi ndax mbalit mi ngi dugg seen biir kër yi loolu jaaduwul loolu liy maire yi war naa ñëw xool li waar yi xool ko xam ne lii jaaduwul ñu dindi ko mais war nañu am loo xam ne lu ñu fay tegal loo xam ne bu feesee ñu jël si ko waaye mbalit moom bu demee ba nekk ci suuf rek dina sonal askan wa fa ne bu demee ba nekk ci suuf dina sonal askan wa fa ndax day am porte-porte day am ndox ndox moomu ndoxum salte lay dugg ci biir këri jàmbur yi ñooñu dañoo wax a wax a ñoom bay bëgg a dee te mënuñ ci dara ñi nga xam ne mooy seen liggéey nañ ñu jàppale jéem ko faa jëlee loolu dina baax trop ci askan bi tey ñaan état mu jàppale ñi nga xam ne yàqule nañ ci marché bi boobu ba léegi digle leen fi ay ndimbal yoo xam ne jotuñu si ndimbal yoo xam ne jotuñu si te normalement ku yàqule ay at di xaar ndimbal. war ngaa mën a ñëw ko dimbali ko loolu ba léegi mat juróomi at a ngi ñu ngi toog di ko xaar te gisuñu bu fekkoon ne loo xam ne ñu xiif la kon ba léegi day nañ bu yàgg. nan ñu dimbali marché bi gaaw pare ba ku ne delluwaat sa place ndax wax dëgg yàlla lii na trop te ñi fi nekk ay jàmbar dëgg ñoo fi nekk ndax fi ñu jaar nii ñu bari ñu fa jaaroon li ma leer duñu agsi fii ndax ku yoroon lu xaaj mu dem ba mu jeex takk xëy yoroo benn dërëm nga commencé waat fa nga commencé woon di dem ba mën a gis dara looy tiim loolu jàmbar dëgg moo ko mën ñu bàyyi ak ngëm yàlla moo moo ko lal ndax ko gëmu doon yàlla sax da nga naan pare naa ci àdduna sama àdduna du dul baax waaye teewul dañoo jëngu di yëpp fu ne waaye dóor su dóor bu ñuy liggéey ba tey jii lii fi nekk nekk waaw kon nag li ñaan daal na ñu dimbali marché bi gaaw a pare bañ dellu si place yi dellu si ñoo ngi ñaanit ñu defal ñu ay financement ba ñu am duñ ko mën a toogee waaw ñu def doon def ay financement waaw ñu dimbali ñu ba lépp woyof daal mu doon euh, mbir moo xam ne day doon lu yomb ci ña fa nekkoon waaw ndax ministre bi ñëw na fi loolu wax nee na bu paree yéen yéen ay première ñëw na fi ministre de commerce ñu fi ñëw loolu wax waaye daal ci ne moom li suñu bëgg-bëgg daal mooy mu gaaw pare waaw gaaw pare daal dañ delloo ko seeni borom daal mooy suñu suñu bëgg-bëgg lépp lu nga xam ne mën nañu dimbali ci dëkk bi moom mën a dox marché bi mën a démarrer moo ñu gën a parce que nekk ci kaw tali bi da jaay risque la léeg-léeg oto dara bi daanu ci kaw nit lu ne am na fi jakarta yi ngi daanu ci kaw nit ñi yi waxi noppi te loolu yëpp ñàkk fu ñu liggéey rek la foo teg ñu du fii taamu fenn foo jëm gis nga jaaykatu jën yaa ngi nii jaaykatu lu ñu yaa ngi nii foo aw si marché bi ñu ngi toog ñu ngi toog ci mbedd mi di taxawal amul amul ker amul naaj muy taw fi la ñuy risqué muy naaj fi la ñuy risqué amuñ fenn fu ñu jëm fu fii la am te fii amul sécurité ni gisee ni nga gisee nii lal nii kenn ku nekk loo mën a indi sa alal booy wàcc yu bala soo mën a fii nga koy bàyyi boo xëy la fekk nga xam ne lii nga fi fekk te loolu xam loolu taxuta liggéey am gis nga lii fii ay cantine si lañ génn ay magasin si lañ génn te fii lañ mujj te yaakaar naa bu ñu amoon ndimbal konoon ron nañu weesu fii mais amuñu ndimbal amuñ ndimbal amuñ ndimbal ñaare bi lu ñu waxoon si mas bi dara si amul te mas baa ngi ne boo fu duggee da nga gis sa kenn du la ko nettali bi demul liggéey bi demul des na des na ndax tabax yomb na may finition moo jafe kon na si finition boobu lañ nekk nañu si dimbale mu gaaw buñ amee daal lu ñu mën a gënal bu laa neer bi jeex moo ñu ni gën yaakaar nañu sax ñu fa neel waaye fi mu toll nawet moom ñëw na pare ndax ñu ngi si biir nawet bi kon nag nañu dimbale si nawet bi balaa moo jeex fekk yi ñëw balaa ñu koy campagne ñu mën a ubbi suñu parce que nit ñu son nañ de. ñetti ministre commerce jaar nañ fi depuis bi mu lakkee c' était au temps de Alioune Sarr li ñu ko rencontré avant bi ñuy commencé liggéey ëpp na cinq fois Assom bi mu nekkee kii ñëw na fi yaakaar naa plus de trois ou deux fois foofa naa mi mujj moo fi mujj ñu defal mu def riir bu rëy jigéen soor yëpp teeru ko ci marché bi ñu am ci yaakaar lool ñu dignu dans deux mois deux mois yi fin mars. mais depuis bu mu fi jógee defuñu fi dara marché bi mu taxaw bi mu taxawoon moom ci boppam ñi ngi koy fàttali ay besu bés boobu mu taxawoon Ziguinchor ba gis population Ziguinchor ak xeer bu ñu xeeroon ndax yaakaar ne seen liggéey seen marché day pare a ah mu war ci bàyyi xelam ñu war ñu jàppale marché bi mën pare dax nit ñi mën a delluwaat ci seen liggéey. yëpp ku fi nekk ku nekk ci yoon ngay xëy ci ngay wàcc naaj bi ak taw bi yëpp fii la nekk bagage yu bari day yàqu loo génnee ci biti balaa yàgg mu fur yi mel nee nañ noo xam ne kenn du ko mën a gis. te wut ba léegi ñoo ngi waaw kon daal nañu dimbali mu gaaw pare ñu delloo place suñu sañoon nag suñu marché bii pare ñu dugg ci biir luñ si yàlla may ñu jël mais boobu temps nañ nekk en sécurité mais fuñ toll nekkuñu en sécurité vraiment nekkuñu en sécurité te métti na trop diis na ci ñun trop te tiis na ci ñun gis ngeen lu ñuy jaaye soo sëkkulee sa place doo jaay fii yëpp ay ndox la woon dañoo nekk di yennu xeer ci biir du ñoo di sotti te metti na. lu ñuy def yëpp ngir njaboot rek lañ koy def parce que jigéen bu bàyyi këram yeew fajar dem di uti ji yóbbu ko fenn du lu biir këram njaboot moo tax ñuy jóg kon njabooti nañu jàppale. rawatina xale yu góor yi ak yéen ñi bailleurs de fonds yi dañu bëgg ñu jàppale ñu. marché bi bi ñu koy sos kat nii la meloon ay mbaar ay ay mbedd mi lañ fii lañ sosee woon ñu jóge fi ñu jox ñu terrain bi di dajale ay seng ak i bant ak capital ku départ capital zéro ba un milliard cinq cent lakk foofu xam nga kooku moom ku ko jàppale woon lu tuuti demam day jo day yomb mu taxaat bi lii amee kenn jàppale wuñu ñoom ñu jàppaat di ñox-ñoxi kenn newul ci dara lii dong la ñu nekk kenn mënu cee def leen waaye fu ñu jëm lan lañ am fii lañ am fii lañ xam fii lañ yaakaar ndax fii lañ amee woon li fi li fi lakk te yaakaar fas yéene amaat ko fii moo taxoon bi état ne sept mois ñun ñëpp dañ ko tàccu biñ demee ba loolu antu itam demul biñ demee ba ci biir ba ñu commencé liggéey bi ñëpp a waaye liggéey bi yeex ndaxte doxin bi muy dox mun nañ ne liggéey amatu fi te liggéey ba des ndax buñ ko liggéeyoon li des dina gaaw waaye li li ñuy def nii nii nii du liggéey ndax marché bu toll nii doo fekk lu mat ñaari maçon wala ñetti maçon durant six mois loolu am na li xew te ñu leen ñaan état bi président de la république mu jàppale ñu ndax agale lu suñu marché bi ndax njaboot bi sonn na commerçant yi sonn na Ziguinchor sonn na Guinée Bissau sonn na Gambie sonn na population boobu yëpp fii la son doon seen yaakaar fii lañ doon ravitaillé ñu dig ñu un marché moderne international sous régional buñ demee ba loolu xëy na commencé nañ gis nañ lépp di ah yaakaar naa liggéey bi tegu na ci yoon ñu ñaan leen ñu àggale ko lu gën ñu gaaw ñun daal sonn nañ commerçant yi sonn nañ ba fu sonn yem ndax liñ yaak liñ doon ñox ñoxe bu njëkk sax fexe-fexe ba samp ay mbaar mbaar yooyu yëpp léegi nëb bante nëb na yëpp mi ngi bu ngelawee tey duñ dese dara yëpp ay daanuwaat ñu dine ko bay day mel ni beneen sinistre moom la ñuy dugaat kon nag ñi ngi ñaax état mu góorgóorlu jàppale ñu ndax ñu mun ñu àggaleel marché bi ci lu gën a gaaw désespéré euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy marchand yi foofu la seen état bi toll Euh, ci li nga xamante ni moom moo jëm ci seen euh, wàllum marché bi la di marché ci leen dégg ngeen kaddu yi nga xamante ni moom la ñu addu ci euh, état bi nga xamante ni moom la marché bi toll ci départ bi ak li nga xamante ne moom la leen nguur di goon nee nañu lu ci bëri defuñu ko te amuñu benn ndimbal bu ñu sañoon état bi jàpp ci liggéey bi marché bi daal di teel a jeex ndax ñoom yàkkamti nañu dugg ci biir gis ngeen ñi nga xamante ni noonu la ñuy tëralee seen bagage yi ci tali bi daanaka di fa jaay mu ànd ak insécurité mu ànd li nga xamante ni mën nañ ci am yeneen lorange gannaaw lorange bi nga xamante ni fekk na leen fii ci lakk-lakk bi ñoom euh, taw bi Ziguinchor ñëpp dafay taw lu bëri euh, seen zone boo xamante taw ne dañuy lal ci tali yi mën nañ ci am ay lorange yi nga xamante ni taw bi mën na lañ ko teg mais aussi insécurité bi nga xamante ni am nañ ko ndax sàcc yàq agresseurs yi daañuy léeg-léeg jëli seen bagage alors euh, lu ñaan état mooy ñoom état bi daal di leen marché bi mu jeex ñu mën a dugg ci biir mën a nekk ci sécurité et puis aussi li nga xamante ne mooy ndampaay yi ñi ci am ay ñu mën leen jox seen ndàmpaay ci wàllum marché bile a lakk-lakk yi nga xamante ni am